di maamoo yaa dikk sëri yaa doon mbër ma daamoo yaay sunu ndey yaa dikk yaa doon mbër ma di baay di mag di maamoo yaa dikk sëri yaa doon mbër ma daa moo war mbooloo mi ku nangu ni sëñ Tuubaa moom jugoon taxaw ca kaw màggal ko na ñëpp jóg taxaw ca kaw nu njukkal Seexul Xadiim ku ko def ren la ko def de jóg leen ay sa yaay sunu ndey di ma daaw yaay sunu nday oh, yaa dib se yaa dib se yaa doonu bala ay se yaay sunu nday baay dib mag di maamoo ay sa yaay sunu ndey di baay di mag di maamu yaa di puso yaa doon mbër ma daa yaa doon mbër ma daaw moom yaay sunu ndey di baay di mag di maam yaa dib yaa dib seen bala ay sa yaay sunu ndey kat di baay di mag di maamoo yaa dib yaa doon mbër ma daaw moom Ramadan Ramadan bala asayaay sunu ndey ibaay di mag di maamoo yaa Moustapha Ndakaaru yaakaar nañu la ñu ngi lay raamoo way muriya te kub yaa na li maamoo ñu ngi lay ñu ngi lay raam muriya te kub Cheikh Moustapha ñëpp a gi lay teeroo di bañ ma la moo yaay général xalaat moo ay di bañ ma la yaay général Cheikh Moustapha yaay général xalaam yaay général général ya général dina xalaam yaay general ya general dina xalaa mo ya general general ya general dina xalaa mo ya general amma gid bas ya general dina xalaa mo wani sere kan bi njande njande moo raa moo tey sant ndax ay u dolli kuy maramo njande ngiram njande ngiram te sant ndax yow maa ngi lay nuyu dinaa la salaamu aleykum yaa mutawali maamu dinaa la salaamu Mustafa ma ngi Basiru ma ngi lay nuyu dinaa la salaamu عليكم يا منذ الإمام على سلام سلام على سلام ورنا دلو سنت غير الخديم خير لنا أحمد فل قديم سيدنا أحمد ورنونو دلو سنت غير الخديم غلام أحمد بل في العين قديم شيخنا أمدون فاي بك ورنا نو دلو دلو سنت خير الخديم شيخنا قدم شيخنا أحمد بك بايدام أحمد ميل نتانون هنو يوبل ngëneel yu taaru ci diine baydam lanu tanoon waaji ku siyet lu gaay ca baawoon ara sant yàlla tey def yoone waaw gaaya ca bawal wër jógo sant yàlla bala ay sa danu daakaas baraay di sotuli yombal tey ko jógo gis u daq kër gëmu mi ne waaw lu yóbbal tey ku njogoon ji suudaan kër ga mu miin ba la ay sa danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar tey ku jóg war wat ak i gaali safiine waaw ba dem ndar tey ku jóg war wat jërëjëf sëñ Bamba Axmadu Xawsi Mbakke jërëjëf sëñ Bamba Axmadu Xawsi Mbakke dogo nak mbawa kembala luy misikine abal ci néegi am ak diine yanu bokk ba mu tabal ci néegi ak diine anu génne ci réer gi réer ci néegi am ak diine suñuy xol xar suñuy xol def fi ci cofeel ak miine mag ñi aw ba yaram ndaw di màggal màggam ñu rey fiiru fi Tuuba Mbàkke doy nga nu ko aj du siyaare keneen dañoon na ko aj ñu jëm siyaare keneen borom ju mat ji dañoon na ko aj ak dootul siyaare yàlla sunu wirdo yaa nu doy ci muqaddam لا يدين القم بجنار يا نكرم مكي يا نكرم ولي ذيات خوري بداي دك لواجب ذيات خوري بداي وجك لواجب بك بدكن يوم نوم قبل تيفون bala ay sa buddu ko ni yow waa penku duñ jar nee Junjar nene buddi ko soodaan mu jëm ak di jaddu bu njaloor bi fegga ci yow soodaan mu jëm الصبران صدا يا دبايو مسكين يا ولا دانو نمبل سين جن ايوانا كوجوك ماغال سيغ بامبا يال نغا تاغوك بكار ko seen mënu ko xam du ko xam say karaama say jéego kenn du ko seene karaama say jéego kenn mënu ko kenn mënu ko xam karaama say jéego kenn du ko seene say maqaama say jéego kenn mënu ko xam say karaama say jéego kenn du ko seene am na yaqin man nga boromam man nga boromam am nga ilmu dara man nga bari diiwaan te gaal wul ci géew bi dane mbëréew nga fi diine te gaal wul yow rek daan mbëre yow nga fi diina tëggale ulle jigéen bi yow rek daan mbëre yow nga fi diina mbàkke mbëri diiwaan tëggale ulle jigéen bi yow rek daan mbëre yow nga fi diina tëggale ulle liggéey bi daane mbër yoo fi diine bak yaa fi sax da jënd bu ñu rëy ñata daanu ku deew daana daane yaa am diine yaa fi sax da jënd bu ñu rëy ñata daanu bakke ta daanu ku dul yaw daana daane yaa am diine bakke yaa fi na turu yaa fi yàlla texe dana dure damma kecene yabin kru ya wedi Allah tekhego bakke tekhego dunya damma kecene bakke yabin matu kudubu mabi qawdu dialim alim ya khadim Mbakke jaalim jambaar ja xadimi rasuuli xadimi rasuul garaat la jambaar ja xadimi rasuuli xadimi rasuul garaat la dosen maroom Bamba Bamba xadimi rasuuli doomi Bamba amiin sakk nga xutbu Mbàkke ki xawsu sama barakallah doomi Bamba amiin Sëriñ Bara Mbàkke barakallah doomi Bamba amiin sakk nga xutbu Mbàkke barakallahu doomi Bamba amiin sàkk nga xuddu sàkk xawsu sama barakallahu doomi Bamba amiin barakallahu doomi Bamba barakallahu jërë ngeen jëf guddaayu njàng mi ngi ci jéglu bu baax a baax ndax xam nañ jataay bi ni mu demee ak toogaayu bu yàgg bi ak ñi ci am yéene ñëpp euh, ñi ngi beral nuyoo ak sëriñ Seydou mi nga xam ni moo woote bis bi di ko defal sëriñ Fallilou wax dëgg yàlla muy sama wëllëre bu yàgg nu am xame bu yàgg sëñ Xaadim jërëjëf fan jëf jërëjëf jërëjëf nu am xame bu yàgg ak wëllëre bu yàgg mu def ku bëgg xasaayid yi waaye man mi itam mu am ci man cofeel lool bu ma xam ko yàlla xam na ni daaw bi may ñëw fii bisam bii moo tax ma waroon dem Gàmbi toxal ko ngir fonkale gu ko fonkale bis bi tey jii maa ngi war a fanaan a jànge yëmbal waaye jëmmam moo ma fi téye ba waxtu wi donte guddee naa ñëw sax ndax ku nekk xam na ni daayira bi ñuy wax ahibaawul xadim di daayira sëriñ Moustapha Mouhamed te baaxoo ko daan jàng fii ci raay bi tey jii la woon bis bi waaye dañ ko def bëccëg falaa jiitu dogu ñëw fii maag sama kilifa bu baax gi sëñ Ablaye Seck ñoo àndoon nekk fa ànd ñëw fii loolu rek moom a xaw guddeel waaye fii moom jëm suñu fi di yàkkamte ci dara ndax bis bi noo ko moom jàpp nañ lu fi waaye def ci lu baax ñun la ko defal suñu digganteeg Seydou toll na noonu suñu cofeel ak moom it toll na noonu Seydou it di nit ku baax li wax ci moom doy na sëkk kon nag yàlla ko yàlla taxaw te yàlla sàmm ko te aar ko maa ngi nuyu waale sama mbokki jàngkat yi fi nekk yépp tàmbali sama kilifa bu baax gi sëñ Ablaye Seck sëriñ Alxaaji Seck maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaare ak ñi nga àndal ñëpp sëriñ sëriñ Makumba Ñang ak sama doom jële sëñ Fallou Seck ak mboolem jànkati xasida yëpp maa ngi leen di siyaare bu baax bu ma tuddee kilifa yooyu rek danañ yóbbaale ñëpp di beral nuyoo sama bokki communicateur yi xam ne man ab ràbb laa ci ñoom laa bokk Xaadim Mbuub mii moo ma formé te yëf yi maa ngi koy bëgg a miin Cheikh Mbacke Njaam mi ngi sama ginnaaw waaw ah, Alaaji Mbay nee na mi ngi sama ginnaaw Sidi Sidi xar waaw Sidi xar ngi nii Sidi xar xar rek laa koy woowee ndax xar yi muy lakk suñu soi seen maa ngi lay siyaar bu baax yaa ak sëñ Babacar Ñang ak sama doom jële sëñ Ousmane jërë ngeen jëf sama law bi maa ngi lay nuy ak sama bokki Tuubaa yi ah sëñ Abo waaw sëñ Abo gisuma ko damaa féete ginnaaw Mbacke sëñ Abo bi am sa waaw amin amin amin Mbacke ah mii moom sama dooma ah, sama dooma ñoo bokk lan ba noppi mooy sama xarit xaritoo bi sax yàqu na waaye defaraat na ko waaw ah? waaw ñooy ñooy samay gars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 251 04 05